salaamaaleykum mbokki internet yi ginnaaw seen mbégte di suñu bànneex kon nangeen ko bëggee rek lañu koy defee ak yenn uh, saa su nekk uh, ku ne xam na ni uh, semaine bi passé dégg ngeen buzz bi nga xamante ni bi moom moo doon daw ci internet bi muy actualité ki nga xamante ni bi muy Liw Faramareen ginnaaw ba mu jógee ci ki nga xamante ni moom moo di Wally sekk yéeg kaw seen seenu Sidy Diop def daal di daal di wax li nga xamante ni bi tey moom moo ko tax a jóg mooy jóge na ci ki nga xamante ni moom moo di Wally dem ci ki nga xam moom moo di Sidy Diop ba muy jógee ci loolu nag boole ko ak ay saaga yoo xamante ni bii moom ginnaaw ba mu waxee ne waxul benn tur dafa joxe li nga xamante ni bi moom moo di ay insigne rek ci ki mu saaga euh, ñi nga xamante ni bi ñoo ñoo di waa kër Wally Seck ku ci mel ni euh, Idali ki ci mel ni délégué Amar ak Armand Ndiaye daal di koy kocc euh, ginnaaw bi nga xamante ni bi waa Subatel musique ñoom ñoo doon joué ak ñi nga xamante ni bi ñoom ñoo di waa staff Sidy Diop football foofu lañ ko fekk ca stade ba daal di koy nax ne ko dangaa war a ñëw ñu defal la interview ba génn ñu daal koy kidnappé dugal ko fi nga xamante ni bi moom moo di ci oto oto bi menacé ko génneel ko ay ay paaka daal di koy dóor ba mu wax ne moom ki ko sant loolu moom moo di Mata Diop suba teel moom moo ko saagaloo ki nga xamante ni moom moo di Wally Seck waaye ci biir loolu nag gis nañ ne ba coow lu moom mi nga xamante ni moom moo di Mata Diop suba teel affaire bi métti woon na ko ba tax na mu bëggoon dem li nga xamante ni moom moo di ci yoon waaye ci biir loolu gis nañ ne ñi nga xamante ni bi ñoom ñoo di waa groupe jeune reporter ak ki nga xam moom moo di Abdoulaye Diop xaas ñoom ñoo def déplacement dérangement dem ci ki nga xamante ni moom moo di euh, ci Mata suba teel daal di koy ñaan njëkk ba moom itam mu daal di bàyyi lépp loo xamante ni bii jàppoon na ko moom mi tamit nag ci biir loolu liw faramaaren ne woon na moom mi nga xamante ni bii moom la ñu dóor def ko jëf ju ñaaw jooju moom itamit baal na leen ci xol bu sedd guy waaye dañoo remarqué ne tey ci suba nga xamante ne ñoom ñoo di waa cybercriminel daal di leen woolu moom moom nga xamante ne moom moo di Idali mi nga xamante ne moom moo doon filmer liw faramaaren ak ki nga xamante ne bii moom moo di délégué Amar ak fecc kat Wally Seck boobu noo nga xam moom moo di Armand Ndiaye biñ leen wooloo ba ñu ñëw ñu daal leen téye garde à vue waaye nag ci biir loolu am nañ ay renseignement ne ki nga xamante ne moom moo di Arma Ndiaye di fecckatu Wally Seck bi moom nag bàyyi nañ ko sax mu daal di dellu ci ci ay njabootam waaye nag ki nga xamante ni moom moo di délégué Amar ak Idali ñoom jàllalal nañ leen fële ci police point E en attendant ñuy xaari ni yoon def liggéeyam loolu moo doon information bi mbokk Antoine